Restez toujours informés sur SeneInfo. xibaar yi wóote leer ci bile jamono. toujours informés sur SeneInfo. xibaar yi ci bile jamono. fii la mburu bi tàngee fii lay xayam yile jamono dafay gëstu ba mu leer mu soog la ko jox moom xibaar yu wër te leer ci yile jamono point net ngeen jëf dalee nax jàmm ci seen yor yoru sene info comme niñ koy defee saay su nekk rek ma di ko amal ak sama natango yi di Buur Sine Coumba Ndoffène Diouf ak Khalidou yi ak Kalidou Ba xam naa dama leen di bàyyi ñu nuyoo ñu daal di tàmbali traité seeni information information Mbour asalaamaaleykum. waaleykum salaam soxna Astel maa ngi lay nuyu di la jaajëfal bu baax a baax di nuyu sama naataango bii di Kalidou di nuyu itam uh, suñu cadreur ak uh, mbokk internet yi nga xam ne kon saa su ne ñu ngi bàyyi xel suñu différentes plateformes yi di amaat bu baax rek kon uh, di leen digtal yor-yoru Sénégal. waaw ah, waaleykum salaam maa ngi nuyu Astel eh, di nuyu sama naataango bu mu bu Ndofène di nuyu internet yi ñu suivre à travers Seneinfo point ak Seneinfo international. jërë ngeen jëf di leen nuyuwaat di leen jaajëfal bu baax a baax tey nag waxtaan bi dañ koy tàmbali ak tournée économique bi nga xamante ne ni moom président Macky Sall amal na ko fële ca Sédhiou ak lu mu fa jot investir yëpp mu doon. inauguré ab hôpital loolu yëpp dinañ si ñëwaat ñu jàll si coalition Yewwi Askan mi nga xam ni ñoom tamit daal nag daanaka dafa tas ndaxte ñu bëri ñu nekkoon si coalition boobu daal lañ di génni dem ber seen daara ngir élection yi di ñëw ñu dem ba tey si Karim Wade mi nga xam ne am na ay auto de yu mu jot yónnee fii si Sénégal li ko waral tamit dinañ ci waxtaan ak euh, bu ñu jógee si loolu ñu dem si international nekk épidémie bi nga xamante ne ni ñu ngi koy woowee Marburg te mu nekk fële ca Guinée équatoriale dinañ si indi ab ay jàngat. dinañ si indi ay jàngat suñu jógee foofu rek ñu ñëw tamit si Macron mi nga xam ne amal na ab visite ci Afrique centrale moom Emmanuel Macron dina visiter commencé na sax depuis mercredi mu ngi visiter lu toll si ñeenti pays Afrique. si boobu la visite dinañ si waxtaan ak yéen daal di jàll si culture ba tey rek mooy 28e édition wu FESPACO bi ñuy amal Kédougou chaque année xale ko ak sport rek di suñu gaynde yi nga xamante ne ni démb nag qualifié nañu demi-finale ginnaaw bu ñu dooree équipe bu benn un but à zéro ba tey si sport rek ñu àddu jëmale ci combat bi nga xam ne Sa dina ko amal ak kii di Reug Reug dimanche bi ñu jëm Buur Sine xam naa dañuy tàmbalee waxtaan rek ci tournée économique bi nga xamante ne nii moom Macky Sall amal na ko fële ca Sédhiou mu war a jeex tey. maanaam Macky Sall moom tey la war a ñibbi si tournée boobu nag moom Macky Sall barki démb ñu gis ne mu ngi doon inauguré foofu ab hôpital ba tuddee ko kii di professeur Amadou Tidiane Ba moom nag mu nekkoon ab enseignant si loolu nag si boobule hôpital moom Macky Sall daal na di si investir lu tolloo vingt milliards de francs fa ma bàyyi leen ngeen indi si ay jàngat. waaw soxna Asgal comme ni ko waxee rek euh, premier point bi njiitu réew mi Macky Sall mu ngi wëyal koy amal ci région bu Sédhiou ba koy démb nag ci étape visite visite boobu daf ci am am solo muy euh, hôpital de niveau deux euh, bu Sédhiou boobu nga xam ne kon ñu ngi ko dibbee kooku ñu ngi woowee Amadou Tidiane Ba xam naa suñu naataango sax dinañu dikkalaat ci profilu kooku nga xam ne kon tuddee nañ ko euh, boobule hôpital muy hôpital boo xam ne nag ñu ngi naan liñ ci. def ci ay koppar toll ci vingt milliards de francs CFA mu amit ay euh, jumtuwaay yoo xam ne yu dernière génération la euh, gis nañ ko ci image yi ñu koy biñ koy euh, inauguré bokk na ba léegi ci hôpital boobu nee am na lu toll ci dix-huit services médicaux chirurgicaux xam nañ ne daal kon dina nekk hôpital boo xam ne bu am solo bu am solo lay doon dans la mesure où ku ne xam na santé pilier bu am solo la ci réew. réew moo xam ne day aspirer au développement daa am ñetti piliers à chaque fois yuy yuy revenir wàllum santé wàllum wàllum njàng ak li nga xam ne moom mooy mbéy gis nga ñett yooyu maa ngi leen di wax dëkk boo xam ne moo la ci gën a taxaw rek moo la gën a avancé dëkk boo xam ne def na tout ba njàngam ñu ñoŋal ko li nga xam ne moom mooy euh, santé mu taxaw ci ñi nga xam ne ñoom ñooy doomu réew mi euh, agriculture mm-hmm. mu def ko ba am autosuffisance alimentaire maanaam du jéggaane si beneen dëkk loolu dëkk boo ko gisee d'habitude dëkk bu la ko ëppalee rek d'habitude euh, côté développement moom moom moom moom moo la fay raw euh, peut a récent tam euh, ci tukki Macky Sall bi gis nañ mu def li nga xam ne moom mooy lancement bu ma jumul Promoville programme Promoville foofu la ca bu namb loolu tam am na solo mu nekk noo xam ne ñu ngi ciy tudd ay koppar lu ëpp 3 milliards ñu nar ko ci defite ci ay koppar loolu muy la am solo itam euh, xanaa rek ko li ma waxoon rek sama tax ma bàyyi ko mu ñëw laal ci euh, structure structure boobu nga xam ne euh, am na solo ak surtout ki ñu ko dippee. Amadou Tidiane Ba Kalidou. ni nga xamee nekk na koo xam ni borom xam-xam bu mag la. Mhm. parce que am na jaar-jaar. d' ailleurs moom sax nekk na recteur nekkoon recteur. Mhm. nekk professeur si science. Mhm. nekk maire nekk ministre. ci régime yu passé. nekk koo xam ne tamit euh, jàpp nañu bokk na si ñi nga xam tamit euh, ñaanal nañu xam ne mooy njiitu réew mi di mhm. ni nga ko waxee que demande sociale la ndax suñu dafa enclavé wu. Mhm. ñenn nañu ay mais mhm. euh, yoo xam ne bokkul. ay odontologie ay ay lu jëm ci wàllu chirurgical ak ak lu jëm ci ah, pathologie yu bari di nga traité foofu. Mm-hmm. day permettre aussi ñi xam ne ñooy jógee basse Casamance ndax xam nañ foofu c'est la basse Casamance. Mm-hmm. ak ñu jógee Guinée Bissau yëpp ñëw foofu di ñu ko quand même euh, lu am solo mm-hmm. ndax quand même plateau médical bi su élevé euh, dafay permettre euh, nekkinu nekkinu bu baax ñeel nekkinu askan. gis nañu aussi li nga wax noonu. Euh, mooy euh, l'ancienne Promoville bi daa dafa dafa daal di poser première euh, maison bi nga xam ne mooy maison maison de la jeunesse de la citoyenneté mm-hmm. dafa de Goudomp daal di lancer maison de la jeunesse de di poser première pierre mm-hmm. daa léegi biñ ko réflexionné nag ni nekk na benn centre boo xam ne li si jublu mooy ndaw yi ñu daal di former formation ñu mm-hmm. dajee di échanger seen biir entre un milliard si def gis nañ aussi am na quand ay kër yu baax nekk ci biir lu mel ne si nag technologie de haute euh, waaw de haute qualité euh, euh, jaar na ziar ñi nga xam ne kër diine yi xam nga suñu diine la jaar sanguinaire yi ko di bantan li nga mooy kii boucle bu Bakau gis nañ tamit mbooloo bu bari daal di ko toog. loolu mm-hmm. quand même loo am solo loo am solo ci mm-hmm. tournée boobu noonu tam. mu ngi ba tey ne moom Amadou Tidiane Ba mu ngi génn woon àdduna en septembre mille 2017 su ma juumul voilà merci beaucoup si yooyu les jàngat am na solo lool. xam naa dañuy jàll si coalition Yewwi Askan mi nga xamante ne nii sosoon nañ ko si élection yi. waaye nag euh, bu ñu taxawee def taxaw seetlu gis nañu ne ci coalition boobu daanako dafa tas ndaxte ñu bëri génn nañu daal di ber seen daara comme ni ñu ko mën a waxee. ku si mel ni Ahmed dara suñ demee si moom moom mu ngi jàppale kii di Malick Gakou nga gis Déthié Fall moom tamit nekkoon na ku amoon solo ci boobu les coalition daana di ber daaram di keneen ak keneen maanaam maanaam suñu taxawee def ceytu coalition boobu. Euh, est-ce que duñu wax ne jeex na daal fii lay yem si loolu xam naa dama leen di bàyyi ngeen indi ci ay leeral Kalidou. xam naa li ñu war a préciser rek mooy dafa am ñu ci coalition bi mooy parti yu nekkoon ci Askan Wi donte ni ay parti lañ ñoo xam ne seen doole demeewul noonu waaye ma leen respecté. Mm-hmm. six parti la bokk si parti bi nga xam ne mooy doole askan wi bu Assane Dia. Mm-hmm. parti bi nga xam ne mooy euh, parti. Euh, bi nga xam ne mooy FPRS Front pour République du Sénégal bi nga xam ne kii moo ko jiite Front pour République euh, du Sénégal FPRS bi nga xam ne ci euh, biir Diop moo ko jiite am na aussi euh, parti bi nga xam ne mooy Sénégal rek bi nga xam ne Gouda Fall moo ko jiite ak Serigne Saliou Gueye aussi par bokkan si ñi nga xam ne gën a nañ au six partis c'est vrai yéen askan wi ñu préciser ñoom mooy bi ñu taxawee coalition bi li mooy dañoo dañoo dañoo dem ci élection municipale législative ak présidentielle mm-hmm. présidentielle ku yi nekk ci biir jàpp nañ ni ñooñu génnuñu ay ñoom dëcc faal rek ay ñoom ak ñeneen mm-hmm. ñi génn mooy parti six parti yooyu noonu nga xam ne nee nañ parti euh, moom de toute façon problème yooyu daf mu am mm-hmm. mooy yi fa intérêt la parce que nee na ëpp doole si coalition bi ñooy buum di buum mais Khalifa Sall Ousmane Sonko luñ mën a comprendre parce que quand même euh, forcé yëngu ndax quand même ñooñu tamit ñu ëpp base électorale mm-hmm. Khalifa Sall Ousmane Sonko peut-être à part loolu waa PUR ñoo si topp ay ñoom ay dem et cetera waaye daal am nañu am nañu fekkee gis nañu loo xam nekkul mën nañu génn mm-hmm. waaye. buñ ko defee de façon radicale parce que man ni mu gis Abdou Karim Fall waxee démb si ondes yi RFM mm-hmm. dafa mel ni yéen musul def lu baax depuis que euh, bi ñu nekkee deux ans. Mm-hmm. pourquoi ñu toog ba suñu doo génn am na ñeneen ñoo xam ne jàpp nañ peut-être dañuy préparer pour rejoindre pouvoir bi wala dañuy instrumentaliser mais en tout cas wax dégg moom yegg nañ la mel ne mm-hmm. tamit suñu ànd. Euh, mun nay nekk waaye su génn tamit même fekk dina génn war mun rafet mm-hmm. ndax politique du violence du xuloo du xeex mm-hmm. parce que affaire élégance la ak mm-hmm. euh, li nga xam ne mooy euh, gentleman agreement am nañ trois benn seen camp bopp ñu génn waaye man yaakaaruma ndax ñooñu noonu war nañ mun waaye doole yooyu askan wi waaye yooyu askan wi quand moo nekk première force de l'opposition gis nañ ni élection yi dem nañ ba def cohabitation presque ak ak benn mbokk Pape Diop daal dem fekk leen pour hmm. xam ne dafa nekk en puissance te jàpp naa ni loolu accepté nañ que foog nga ne yeewi askan wi dina dina nekkati puisque ku si mel ni Déthié Fall bu demee ba ne moom candidat ak yeneen ak yeneen doon candidat est que foog nga ne yeewi askan wi dina nekk comme nu mu nekkee woon si élection yi ñëw jóge waaw fragmentation man sama xalaat si nu mu gëm la jàpp naa ni en azur yeewi askan wi hmm. maanaam ku ne demal sa bopp Mm. parce que ku mel ne Déthié Fall fekkee fekkee validé na parrainage voix yi mu waroon am fekkoon muy ci fekkee doomu doomu candidat benn kooka candidat ñaari candidat ñoo am par exemple Khalifa mm. am fekkoon bokkul day dem soit si Khalifa Sall soit Ousmane Sonko mm-hmm. Malick Gakou tamit soit mu dem si Sonko wala mu dem si kii Malick Gakou soit mu dem si Ousmane Sonko soit mu dem si Khalifa Sall loolu d'une part en joué quand même parce électorat bi su demee benn nit moo gën waaye tamit dafa am égo ji ci parti bi ndax ñoom tamit dañoo am ambition ay jeunes lañ ñu am jaar-jaar. c'est normal li si am solo daal mooy ku génn si ñoom deuxième tour daañu jàppale benn candidat mm-hmm. mais euh, comme ni ko média yi waxee daal jàppee wu ñu ne comme genre yi askan wi tas na si tas boo xam ne par exemple mënuñu ko wax parce que ñi génn quand même suñu waxee dëgg théâtre man sax maa ngi doon dégg seen tur. kon gëm nga ne deuxième tour bu amee ñoom seen biir dinañ jàppalante. waaw loolu deuxième tour su ñu demee ñëpp dañoo xool si jàppale kenn maanaam ñu gis ñu xam am loo xam dañ war nañ apprécier. Mm. ci sa politique Sénégal mos ñu gis coalition bu amee si bu mel noonu xam nga bu njëkk daan gis coalition boo xam ne ci benn élection dong lay lay def coalition après mu tas mais dafa dem municipal législatif présidentiel peut-être coalition bu amnistie bu mel noonu si sa politique Sénégal local la te man gëm naa ni du am problème ñi ñi ñi déposé daañu déposé suñu demee deuxième tour ku si génn ñu jàppale parce que loolu la ñu signé. waaw xanaa bàyyi waaw juste que tas moom comme ni ko waxee rek yaakaar naa tasagul. donc peut-être am na ñu génn dem muy eh, juróom benn. Euh, parti yooyu doo ànd dooleel Sénégal parti changement bu Assane Dia euh, pour la république euh, du Sénégal ànd liggéey nga xam ne Djibril Diop moo ko jiite wax na ko léegi. Mm-hmm. parti africain pour la renaissance et pare suqali Sénégal bu Abdou Karim Sall Abdou moom nga xam ne sax bu ma juumul yaakaar naa moom mooy seen porte-parole. Karim Fall Karim Fall Karim Fall Karim Fall. siis daal boo ko boolee comme ni nga ko waxee siis siis siis parti la ñoom nag ñoom uh, nag coow li mu ngi tàmbali mm-hmm. depuis li nga xam ne moom moo nekkoon uh, choix yi ñuy choix pour investir ñi nga xam ne ñoom ñooy ay uh, ay ay ci ci élection locale yi ma jumul fa la fa la coow li tàmbalee daal mm-hmm. ñoom gisoon nañ ne gars yi eh, ñu tegee li nga xam ne moom mooy investiture yi neexu leen te gisuñu leen seen mm-hmm. foofu moom la wax na ci lu solo maanaam tey doole yi tollul doole doole doole yi tollul tey peut-être boo jëlee tey benn benn Khalifa Sall wala benn Ousmane Sonko base politique bi ñu am euh, peut-être coalition yi ñu tudd wala parti nii booy xool booy xool amuñu ko peut-être gis nañ loolu euh, ñoom ñu ñu jàpp ne nag peut-être ñaar ñee peut-être Idriss à li nga xam ne moom mooy coalition bi muy nga xam ne moom mooy euh, Khalifa Sall ñu gisit ne ñu ngi naan sa peut-être yenn saa yi réunion bu amee duñ mm-hmm. leen informé ñoom daal dañuy toog ba gis peut être par presse nee dañuy yëgee yi nga xam ne moom mooy yi am loolu yëpp ñu boole koon ba tax ñu dañoo mer euh, fippu génn ci yi dem li nga xam ne ñu ne mooy yeew yi Sénégal euh, ñu koy woowee ñu koy woowee yees léegi ñu ngi jëm ci li comme ni ngeen ko waxee ay élection euh, présidentielle comme sama naataange wax na ko maanaam le fait que ku nekk doon candidat bu élection présidentielle parce que parce que loolu dafa bokk ak seen charte mm-hmm. ànd dem ci locales yi analyse législative yi mais bu fekkee présidentielle dafa ñëw ku ne am nga droit def sa candidature bu ñu demee ba second tour ki nga xam ne peut-être bu fekkee second tour am na ki génn si ñoom ñeneen ñi ñeneen ñeneen ñeneen ñeneen jàppale ko mais xam nga politique politique dafa doy waar dafa tëri man maa ngi naan tey est-ce que maanaam ni nga waxee noonu est kenn jàllee deuxième tour est-ce que ni am naa si ay doute am naa si ay doute am naa si ay ay ambition comme personne comme ñu ko waxee. maanaam boo xoolee déjà ku nekk. parce que quand même ci loolu noonu maa ngi par exemple maa ngi doon def benn argument xaaral maa ngi. Mhm. imaginer par exemple Idrissa Seck. fekkee mhm. candidat la. on a sait jamais mu dem deuxième tour. Mhm. léegi léegi par exemple si askan yi dafa am ñoo xam ne dañuy mus a ànd Idrissa Seck. fekkee dañuy mujjee jubóo si diggante ñuy dem fekkiwaat comme par exemple dañ ci faral dañ fekkiwaat par exemple. politique on a sait jamais mën a seet effectivement. kaanu situation yi mel noonu. waaw loolu la ci ànd ak moom ci bu dee fekkaat Idrissa Seck on a sait jamais. bu jëlee sóoraale la kaanu situation yooyu quoi. en tout cas comme ni nga waxee rek gis nga ku ci nekk en tout cas beru na ku ci nekk dafa am say ambition ku ci nekk dafa am ay ambition ku ci nekk yow bëgg nga jiite li nga xam ne mooy Sénégal day sax ambition yooyu moo tax ba ki nga xam ne moom mooy Khalifa Sall mu retiré wu ci présidence ci présidence bi nga xam ne moom mooy conférence des leaders parce que moom moo ko jiite woon ñu choisir koo xam ne peut-être moom nekkul candidat campagne. voilà gis nga pour mën a campagne. ndax peut-être man Sonko dama fa am dama fa am benn genre dama ne ah. est ne. Ousmane Sonko il est en train de gagner. di gagner sur eux. Ah. man dama ne ah xaaral kat mu dem moom tam ne moom mooy présidence bi. dem carrément ci li nga xam ne a bàyyi mm-hmm. ne à 100 pour cent. nit ñi ko am na si ñoo xam ne man damaa jàpp ne tey comme benn genre du ñu nangu par exemple wala boobu dina dina di déranger peut être benn genre Ousmane Sonko tey nekkoon nekkoon nekkoon nekkoon mu ñëw deuxième. Mhm. dañ nekk président dafa ne damay xalaat ne am na ñoo xam ne. loolu du ñu ko nangu. kii mhm. bu Ousmane Sonko génnoon pour man dina leen jaral sax dina leen jaral sax ñu dem jàppale keneen loolu lépp daal ay éventuels yoo xam ne. buur bu ñu desee si mbirum politique ba tey ñu gis ne kii di Karim Wade moom tamit am na ay oto yu mu fi jot a yónnee moom nag fële ca teew sa ko yónnee ba oto yi ñu ngi fii ci biir Dakar yónnee na ci lu tolloo vingt véhicules de luxe yooyu ñu ngi fii ci biir dakaar loolu nag nan ngeen ko mën a jàngatee. waaw loolu de soxna Astel comme ni nga ko waxee rek noonu lañ ko déggee ñu wax ci presse bi ne Karim Wade depuis Qatar bi mu nekk yónnee na ay véhicule lu mat ci eh, ne parce que ñu ne ñu ngi leen ñu ngi fële ñu entre ñu teg ca ca port port autonome bu Dakar ah, peut-être loolu moom buñ ko gisee ci contexte bi nga xam ne nii moom la amee it mën nañu ne xëy na élection présidentielle bi lay préparé mm-hmm. mais élection présidentielle man nag li ma si jaaxal mooy élection présidentielle boo xam ne yow sa candidature c' est encore incertain parce que quoi on puisse dire sa candidature c' incertain waaw c' est incertain du moment où euh, am na ay jafe-jafe justice bu Sénégal doon dañ njiitu réew mi annoncé woon na ne dina leen defal euh, dina def amnistie boo xam ne day concerne ay euh, personnage politique Khalifa moo Khalifa Sall ñu war si bokk ñaar yi nga xam ne seen seen candidature ci présidentielle bu 2024 leeragul te it Macky Sall ba nga ko waxee ba léegi dañoo nemmeekuwaat si diggante bi ab tekkaaral waxoon na ko ba ki nga xam ne moom mooy ministre euh, bu la justice moom moo waroon euh, euh, en tout cas moom mu trouver les voies et moyens nan la ñuy nga xam ne moom mooy boobule boobule amnistie mais ba fii mbir yaa ngi tekkaaral ñu ngi noppi mais it man beneen jàngat bi moo si am mooy est-ce que Karim Wade bu defee lii bu defee def lii yónnee ay oto est-ce que loolu du confirmer supposé deal benn supposé deal bi ñu naan am na ci diggante Abdoulaye Wade ak ak Macky Sall ngir retour ngir retour Karim xam nga loolu tamit ñu ko fi wax. Mm-hmm. d'ailleurs amoon nañ ci benn invité boo xam ne sax mu ngi doon insister ci boobu. Mm-hmm. Eh, naan ñu naan ñu naan naan ñu mbir mi deal la mais tey mel bu amee eh, est-ce que du confirmer supposé deal boobu ndax supposé laa wax parce que wóoruma ndax deal la am ndax deal la am déet ñu ngi wax ñu ngi wax si waxu. protocole de Doha ba léegi rek loolu la mbirum protocole de Doha boobu ñu fi waxoon fan yii que tey kon euh, bu ñu tëbee Karim Wade day yéene ay oto euh, loolu du xaw a dëggal kon euh, mbir moomu noonu ñuy wax. ak it tey ana oto yooyu bu yegsee fii ba nekk port ana kan moo autorisé ñu dugal yooyu oto loolu itam laaj bi ñu war bu fekkee oto yooyu jigéen a ñëw te Karim am problème ak justice Sénégal ana kan moo autorisé. oto yooyu la. Ah, ah ndax Karim Wade dafa am assurance boobu. Hmm. Ah, loolu tam beneen laaj la ah, ah ndax Karim Wade dañ ko assuré ne dina bokk ci li nga xam ne moom mooy euh, élection présidentielle bu bu 2024 ba tax mu am euh, fitu am euh, en tout cas. assurance boobu jël ay oto yónnee dañu ko xam ne yaa ngi préparé li nga xam ne moom mooy campagne bi. Hmm. lu si mën doon daal kon ay laaj ay laaj yoo xam ne samp naa ko. Hmm. di ko laaj sama naataango <laughs> <laughs> ndax loolu la am déet ndax moom nu mu ko jàngatee. dëgg la Kalidou. waaw Seydou waaw information bi journal des Échos moo ko wax nañ lu tolloog vingt auto de luxe yoo xam ne Karim convoyé nekk depuis Doha pour ah njort na ni ci contexte bi ak si timing bi mm-hmm. moom day waajal élection présidentielle ndax bu ñu fàtte nii en septembre 2022 njiitu réew Macky Sall waxoon na ci ben sotti na si mëbët boo xam ne bëgg na ko ñi nga xam ne dañuy perte seen e civique et politique mu amnistie mu def leen defal leen amnistie. Mhm. Karim Wade ak Khalifa Sall na mhm. bi mu waxee ba léegi waxaat daal donc mun nañ jàpp ne ci contexte bii des prépas présidentielles ndax am na ñoo xam ne jàpp nañ ni am na protocole de Doha. Mhm. maanaam rigueur wuñ ñoom ñaar. parce que ñëpp à la grande gis nañ bi élection yi passé mooy élection euh, kii législative yi. yooyu dañ defoon motion de censure pour daaneel. gouverne euh, pour daaneel président assemblée nationale. maam maam maam. Amadou Mame Diop Amadou Mame Diop ndax vote bi jaar yoon. mais gis nañ bi ñu buggee def non pour kii la woon pour projet pour mandat pour projet vote de loi bi pour hmm. projet budget bi. voilà voilà hmm. pour ñu defoon de censure ñu gis waa PRS ñu bàyyi askan wi dem jàppale Benno voté leen hmm. loolu tamit bon mën na jàngal ni jàpp nañ ni ñoom ñaar réeróo yi. waaye dafa am loo xam ne aussi contre politique bu am solo gis nga Macky Sall lépp loo xam ne day wàññi doole Sonko pour être président dina ko def. Ah soo xam ne indi Karim Wade dina wàññi doole Sonko dina ko def ndax PRS ak lu doon tamit ah, ah, appareil électoral c' est vrai que PRS ñoom doole bu am solo ci biir ndax élection municipale yi même si biir ville de Dakar gëm sa bopp dañu jiitu dañu ñëw position ñoom ñëw quatrième position. mais gis nañu si am nañ taxawaay bu am solo ci Tambacounda ci Diourbel ak ci Pikine si région de Dakar. même ci législative sax suqaliku war nañ. solo. ñu bari yaakaar na PDS jeex na mais PDS dafa am benn constat boo xam ne foo dem ci région yi am na ñoo xam ne ñoo xam ne toujours ñoo base effectivement bokk rek PDS bi donc Karim man jàpp naa ni soit retrouvaille mun na am diggante yi Abdoulaye Wade ak Macky Sall ni mu tudd attention. que ne wàllu pourquoi pas sax mënul nekk candidat boobu benn bokk yaakaar on ne sait jamais ci politique. waaw man jàpp naa ni élection yi ñoo bokk ndax Macky ku xam-xam ni Macky di anticiper te lépp ko te képp lépp loo xam def na nga rek am dina wàññi doole Sonko dina def te jàpp naa ni Karim Sonko su ñëwee affaire dina baaxal. Karim ñëwoon bi nag bon boo ko am élection présidentielle peut-être mën nañu xaar fii ci kanam mais en tout cas daal ñun jàpp nañu ni hmm. ah, eh? daal. day euh, préparer campagne parce que quand même mm-hmm. euh, Macky Sall waxoon nañu bëgg na am na si ñi perte seen place si liggéey politique waaye nag kañ waat moom li am na si. Ah. nañu réviser sama na mm-hmm. si loolu xam naa dañuy toog xaarandi ba xam ndax Karima dina bokk wala du bokk de tout façon moom candidature am comme ni ngeen ko waxee rek nekkagul loo xamante ne nii wóor na euh, bu ñu demee si Macky tamit comme li nga doon wax sànq tout sauf Sonko démb tamit gis naa sama benn mbokk journaliste bu ko titré Macky applique la loi tout sauf Sonko xam naa dañuy toog xaarandi rek ba xam euh, waaye waa Benno Bokk Yaakaar na la ñuy mujjee ak euh, Karim. voilà si loolu xam naa dañuy jàll si international wax nag si li nga xamante ne ni mooy pandémie bu fa am ñu di ko tuddee Masbourg fële ca Guinée équatoriale si loolu tamit l'organisation mondiale de la santé di OMS def na benn convocation de réunion d'urgence ndaxte loolu mu ngi commencé di fa faat ay euh, doomuy aadama Boursine ma bàyyi la nga amaloo ci apporté rek si boobule pandémie bi am ca Guinée équatoriale. waaw comme ni nga ko waxee ab euh, épidémie la boo xam ne euh, virus. maru bër lañ koy wax. li tax nag ñu koy tibbee maru bër bi dafa fekk ne kon boobu le virus euh, mu ngi feeñ pour la première fois. Mhm. ville boobu euh, di Marburg ci Allemagne. Mhm. ci 1967 la fa njëkk a feeñ. Mhm. Euh, bu ma nag fi nga xam ne moom mooy Guinée équatoriale bi mooy bu njëkk bi le ñu ko fay gis. ñëwee nag booba léegi commencé na fa def ay ay ay jéey parce que une première fois annoncé woon nañ neuf personnes yoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan. Euh, ci loolu parce que dañu gisee xam nga d'habitude moom bu dara xewee rek nga gis ni commencé de après gars yi médecins yi dañuy dajaloo of course li euh, boobu la euh, ñaari fan si mu juumul deux jours am ñaar ñetti a sama fi nga yoo xam ne mhm. ñàkk nañ seen bakkan ci boobule virus mhm. virus boobu nag li nga xam ne moom mooy benn xeetu njanaaw la muy euh, njugub lay a na n'est-ce pas nest pas nest pas. kii la ñu woowee njugub ci ci ci wàllu. turam turam turam bi ci français. soof suur yi moom la ñu woowee njugub waaw. ki soof suur yi daal lay jógee dem ci nit. mais ci diggante nit ci maanaam jokkalante digg ak nit yi euh, ci mm-hmm. si digg mm-hmm. ak ci animal comme dem ci nit. Mm-hmm. tey waaw dafa mel ni.

ay soins yi ñuy def mooy euh, bu amee ku mu dal daal ñu jël peut-être euh, fièvre ñu jox la garabu fièvre beneen ñu xool leneen loo xam ne dalee métti ñu jël garab loolu jox la ko mais li nga xam mhm. euh, la santé mu ngi ci kon comme am na d'ailleurs ville yoo xam ne fi nga xam ne moom la mbir mi mhm. dañoo wàññi li nga xam ne moom mooy demoon liggéey am léegi sax promesse boo xam ne dañ koo quarantaine fi mu nekk nii dañ ko mettre en quarantaine ngir kon euh, nit ñi. waa ñii waa ñii ko pour li nga xam ne moom mooy kii bi bañ a bañ a bañ a propagé wu. Mm-hmm. au niveau du Sénégal tam autorités yi commencé nañ jël seen seen seen seen i seen i seen parce que yu mel nii boo ko déggee toog rek ne sori na. waaw mu ngi nekk sama. que Covid 19 bi noonu loolu Covid 19 bi moo dégg dañ ko doon pas. finalement ñu ngi doon ko def ay jéyee ci ci suñu réew Sénégal kon yooyu yu mel noonu bu amee comme ni nga rek bu nekk day jël leen devant waaw ci loolu it euh, sama naataango. Mm. si loolu tamit ba ci démb sax ñu ngi doon signalé lu toll ci 16 euh, cas suspects si boobu lee feebar fële ca Guinée Kalidou ma bàyyi na nga am ci apporté rek. waaw comme ni ko naataango moo feeñ ci Guinée mu ngi daal di. Euh, en tout cas lëngee foofule ak euh, li tiital la ci sous région bi. Mhm. ndax euh, dafa nekk feebar boo xam ne day wàllaate fièvre hémorragique la. Mhm. te feebar boo xam ne wàllaat dafa gaaw. moo tax euh, ñoom temps yi seen di comptabiliser lu toll ak onze décès Sénégal nag. en tout cas ku am la si wàllu traitement épidémiologique. effectivement gis nañu taxawaay bu am solo bi ñu def ci Covid 19 bi ci corona bi. effectivement ba nation ba communauté nationale jox leen ay raaya. gis nañu sax ñoo xam ne dañu jógee sous région bi bi corona passé ñëw Sénégal pour am expérience. ñu ne Sénégal fexee ba mu génn ci coronavirus bi. am na ñu ma andi dëgg yàlla Sénégal bokkan ci ñi nga xam ne ñoo gën néewle ci ñàkk seen bakkan ci Covid bi fi amoon. waaw day day day prendre remorse bi. niveau Afrique ñoo jëloon premier. premier niveau mondial ñu jëloon troisième bu mu jëm. ci ni ñu euh, encadré feebar bi ak xeex bi. am na ay borom xam-xam yu mag ñu mel na professeur Seydi Abdoulaye Bousso. Mm-hmm. ñoo xam ne ñoo xam ne ay éminents chercheurs lañ ñoo xam ne dañoo dem bi États-Unis yëpp am expérience. Ah, ki nga xam ne mooy Djibril Sow nag moom moom moom épi moo ji moom euh, mu ngi liggéey ci centre des œuvres d'essence. sanitaire nga xam ne expert de santé publique euh, temps yi passé benn panel nee na Sénégal pare na pour ko affronter li nga xam ne mooy Marburg pour su duggee Sénégal nee na nag li ñu tegoon prévention plan médical bi ñu tegoon contre contre contre Covid 19 moom la ñu teg ba léegi. ok nee na ñu ngi def contrôle bi ci frontière yi ak ci entrée yëpp en cas su affaire bi duggee si réew mi rek pare nañ pour affronter ko. en tout cas loolu tamit loo am solo ndaxte Sénégal quand même ci côté santé boobu noonu ñu ngi fi wane si efficacité. am na borom xam-xam yoo xam ne. en tout cas amiin maladie bi nag amul vaccin nan la yàlla. effectivement mënu ko faj. waaye nag mun na am par exemple loo xam ne soo ko defee peut-être dina wàññi dina wàññi par exemple. fièvre syndrome bi waaw fièvre peut-être métti di nga xam ne maladie bi. exemple ndox boo xam ne da ngay soxla genre réhydratation la lay defal boo xam ne dina koy defal par voie orale wala ñu defal la ko par voie intraveineuse voilà. mais daal nawet bi boo xam ne tàngoor comme ni ko waxee tàngoor métti ngay àndal. taux de retrait boo xam ne dinañ ba mais en tout cas autorité li li gars yi wax ñu ngi daal seen xel en tout cas Sénégal bari na pour ñu faire face. d' accord euh, Kalidou am na solo trop si loolu xam naa dañuy jàll ba tey. aussi international ñu. waxtaan si visite bi nga xamante ne ni moom Emmanuel Macron amal na ko ci Afrique centrale ni ki démb nag mu ngi woon ci Gabon su ma juumul dina def quatre pays d'Afrique yoo xamante ne ni na ko def si ñeenti fan euh, visite boobu nag moom mi ngi ko amal si domaine u maanaam xoolaat seen diggante diggante France ak Afrique si loolu xam naa dama leen di bàyyi ngeen indi si ay euh, jàngat Buur Sine waaw soxna Asel comme ni ko waxee njiital France di Emmanuel euh, Macron dafa tàmbali ab tukki boo xam ne mu ngi amal euh, ci Afrique mu war koo tàmbalee euh, mu nekk nii France dañu nekk si dynamique boo xam ne pour revoir seeni ay relation ak li nga xam ne moom mooy continent africain bi. boo déggee Macron sax ci ab discours boo xam ne kon amaloon na ko ci wax humilité fi nekk nii daal war nañ def preuve d'humilité France war def preuve d'humilité. loolu nag euh, kon bu waxee peut-être reconnaître na euh, euh, mbirum buur ak mbirum buur ak tàgg xanaa waaw ci ci diggante ba nga xam ne moom mooy Afrique bu ñu demee nag loolu mu fekk tam contexte boo xam ne fi mu nekk nii France dafa commencé perdre ma ko mënee woowee hégémonie mbirum daal loolu nga xam ne amoon ko ci Afrique le fait que da doon def lu ko neex rek. Mm-hmm. ak yu ni mel fi mu nekk dañoo gis ne suñu jeunesse bi moom jeunesse bu dëgër ñu ne lañ gis. Mm-hmm. gis nañ tam récemment ci li nga xam ne moom mooy boo jëlee kaawu Mali ak kaawu Burkina Faso yi nga xam ne ay soldats dañoo jël pouvoir bi. gis nga carrément dañoo sax dumóoyu réewum France ci mbirum euh, collaboration sécuritaire militaire dañoo wan ginnaaw baax a baax réewum France euh, il tend plus vers euh, il tend il tend plus vers les collaborations ak Russie ak ak ak France nga kon dem na ba sentir ne daal moom euh, en tout cas taxawaay boobu mu amoon Afrique doole ñi fi amoon. mu ngi wàññeeku loolu nag tax na ba it euh, njiitu réewum France Emmanuel Macron comme ni ko waxee euh, entamé na tukki mu tàmbalee ko foofulee ca Gabon. mais même Gabon boobu sax fa demee jeunesse bi dèjà ko doon personne indésirable la bi mu demee yaa ngi gis jeunesse bi kenn ne gars yi dañ ko génne di di ko daal kon instant yi affaire bi dafa dafa commencé ñu ngi laal Afrique quoi te mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi gën a jóg. Mm-hmm. ci ol loolu comme ni nga ko waxee même opposition opposition bi tam nangi nañ le fait que mu dem opposition gabonaise nangi nañ le fait que mu dem euh, ci contexte boo xam ne euh, ñoom. Mm-hmm. ànd àndatuñu ak li nga xam ne moom mooy gouvernance bi nga xam ne kon euh, président ba di. di Ali Bongo mu ngi koy ni mu ni mu ni muy diriger réew mi ak ñoo xam ne koy naa ngi leen di fekk Emmanuel Macron ñëw euh, di ko kii nu mu tëddee ñëw di jokkoo moom mel ni koy mayaat doole quoi en fait mel ni koy may doole opposition tam naa ngi leen naa ngi leen leen di mel. Euh, comme ni nga ko waxee rek am na France dafa nekk ci zone de turbulence en Afrique maanaam africain si boppam ñoo xam ni depuis longtemps que France dañ leen exploité. Mhm. maanaam da ngay bay dundal France. Mhm. dangay liggéey dundal France dina exploité africain nag dañuy yeewu ndaxte jamono tool dañu toll jamono joo xam ne réseaux sociaux yi africain ñu ngi ci biir ñu xam li xew ci àddina bi. mentalité ñi ngay changé africain yaa ngi commenté actualité ci di wax seen xalaat. africain yaa ngi fépp. Mhm. ci gars yi nationalité ci fépp africain la Macron li mu wax mooy def France li mu wax mooy France. dafa xam réalité terrain bi. Mhm. mooy d'abord Mali am na coup d'état bu fa am militaire jël pouvoir bi maam Guinée euh, Burkina Faso am coup d'état mhm. beneen rejeté leen Nigéria daaw bloqué nañ convoi euh, waa waa waa waa soldat spécial français yi. mu mhm. toll ay heure actuellement xam nañu li amoon mënatul am. maanaam Afrique yooyu dina dundal li mën a am léegi daal mooy coopération gagnant gagnant. gagnant gagnant koo naan si biir bëri am naa ko nawle. Eh. mais loolu moo loolu sax normal. Mm-hmm. parce que quand même euh, actuellement euh, gis nañ ni Afrique beaucoup de ñu militaire français si Afrique. Mm-hmm. parce que gis nañu euh, Mali opération Barkhane bi ko nekkoon dafa échoué terrorisme baa ngi bëre opération yi am foofu yëpp même ministre ministre Barkhane ak opération parce que yëpp dem nañ foofu soldat français mais dañuy continuer nekk si jafe-jafe. Mm-hmm. dañuy rek dañuy dañuy dañuy yokk problème moo tax soo toogee benn période nga wax ah mais tubaab bi dañuy yokk coono bi rek la suñu ak africain moo tax actuellement am seen monnaie bopp lii boobu waxoon nañu il y a quelques années. mooy monnaie éco bi. peut-être corona bi moo tax daal suñu derom. te gis nañ Afrique ñaari yëpp kese lañ dese ñoo xam mooy seen yaakaar mooy Sénégal. Mm-hmm. day kii bi Sénégal moo di la France depuis toujours. ak ak ak ak ak Casamance daal dëkkam ah, la. waaw ñaari dëkk yooyu daal moo di la France ñoo si dañuy espoir. Ah. Sénégal xam nga mu ngi changé. effectivement xam nga ni Sénégal xam nga dañuy yeewu. effectivement suñu mouvement France dégage bii Marisa ah. France dégage. gis ngeen discours pour sensibiliser problème. parce que andi ko la ñaan moo tax mm-hmm. maa ko yaa intérêt ñaar Afrique daal dina wàññi base militaire yi. privilège yi nga xam ne mooy investissement yi. effectivement effectivement ñu ngi naan sax base militaire yooyu yoo xam naa léegi euh, France même doon même bu dee France day wéy di am ay base militaire mu ne dina nekk base militaire yoo xam ne maanaam da koy koo gérer ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ak ñi nga xam ne ñoo am léegi xam nga kon tey dem nañ ba conscient ba dugal leen ba ba xam ne kon instant yi warut nañ rek euh, di diriger en chef ak yu demee noonu mais tey donte base yooyu nee nañ dinañ def de telle sorte que euh, dañ koy gérer. loo xam ne ci lëkkaloo la doon ci waxtaan lay doon ak ñi nga xam ne ñoom ñooy armée armée africaine yi nga xam ne kon foofu la foofu ñu am baal aussi effectif yi mu ne nañ xool ni ñu koy ak ni nga ak yu demee noonu te am nañ ko waxee gën a jublu ci li nga xam ne moom mooy coopération économique effectivement. waaw buur euh, Kalidou jërë ngeen jox si yooyu lay yaatal ñu jàll rek si culture laata ñuy jàll si sport di 28e édition FESPACO bu ñuy amal chaque année fële ca Ouagadougou mu war a commencer le cinq février ba le 4 mars ñu gis si nag ay actrices euh, sénégalais yoo xamante ne nii dinañ dem participer si boobule festival xam naa Kalidou dama lay bàyyi rek nga développer ci tuuti. Devido à ce même FESCACO, du Festival euh, panafricain, euh, de Festival panafricain de l'audiovisuel de Ouagadougou. Chaque am festival boobu nag wàllu cadre wàllu culture lu am solo rendez-vous entre ay culture yu bari yu wute. Mm-hmm. surtout si côté cinéma gis nañ ni quand même Sénégal def na ko jàllale comme chaque année. fekkee li jëm ci wàllu distinction am nañu d'abord onze médailles médaille médaille de talon da Sénégal d'or bi ñu ko jël Sénégal année bonus ci kilométrage bi nga xam ne moom moo tudd euh, film bi mu tudd tey tey la tudd jël d'or bi fekkee bronze bi Moussa Touré bu la Piro long métrage bi boo xam ne moom la tourné woon ñaari catégorie yooyu am nañu ak raay fekkee da jëm ci wàllu film documentaire gis nañu aussi film bii di président Mamadou Dia mm-hmm. film boo xam ne Sénégal moo réalisé di waaw Ousmane William Mbaye moom tamit daal dinañ jox ak raaya. ak ak li nga xam am na aussi beneen documentaire boo xam ni tamit ak Sénégal moo ko def euh, boobu tamit daal dinañ daal dinañ ko foofu. ak monstrofe ku mel ne wàllu cinéma tamit lu am solo ndax day jaay culture réew. Mm-hmm. jaay destination réew. mais li nga xam ne mooy information bu ñu mën a retenir foofu lu am solo. Mm-hmm. mooy cinéaste sénégalais ku mu doon ñaaw nañ bu baax la fekk à Sénégal jàppale wu leen ci daara. Mm-hmm. benn fifteen dugubuñu gis nañ ne Oumar Sarr ñoo xam ne moo jiite euh, centre cinéma bi coo biir euh, ña euh, ki nga xam ne moom moo gagné d'or bi ak bu bronze bi nee na 984 mm-hmm. millions la ñu am moyen de bord te Sénégal dugg loolu doy waar 984 millions. nee na nee na centre mu leen ak TV5. bu fekkee ki nga xam ne moo jël bronze bi di Moussa Touré bu la pirogue nee na 209 millions mooy de bor la te def banque ak ak centre français bu cinématographie moo financé. lu nekk foofu. Sénégal def nañ demande ba sonn culture nee na la Sénégal li li maanaam dem dañuy bari mu ñu leen financé amul benn fifteen boo xam def nañ mhm. gis nañu euh, Victor Auguste euh, euh, Auguste Diaz bi nga xam ne mu jiite centre cinématographie bu Sénégal nee na Sénégal dañoo repassé une politique si wàllu si wàllu collectivité territoriale war nañ jàppale ñoo xam ne ñooy yëngu si wàllu cinéma ndax cinéma day jaay réew day jaay image réew day jaay image dëkk. Mm-hmm. ci wàllu commune mm-hmm. ne sargal ñaari doomu Sénégal kenn je crois te ki si ki si gën a xam sax mooy euh, Ousmane Sembène. Mm-hmm. waaw daal nañ ko sargal foofu la ñu xam ne mooy festival bi am dañuy jël euh, peut-être ab euh, benn partie boo xam ne dañ koy jagleel yi nga xam ne ñoom ñooy euh, ñoom yi. ren nag mu tombeel ak centenaire ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sembène. Mm-hmm. moom it ñu ñu ñu ñu jagleel ko loolu defal ko loolu Ousmane Sembène dañ nekk figure bu am solo ci li nga xam ne moom mooy cinéma rawatina sax mm-hmm. man bi may gën a nekk xale dama jàppoon ne Ousmane Sembène du sénégalais. parce que loo gis si réalisation téléfilm burkinabé yi demee noonu da ngaa def ba jàppale du sénégalais mais ma demee ba ba màgg laa doon nga xam ne effectivement euh, science sénégalais la boo xam ne peut-être dafa gënoon fës ñu fële nga xam ne moom mooy moom mooy mu def lu am solo ci li nga xam ne kon moom mooy cinéma rawatina cinéma cinéma cinéma africain quoi. ndax même fii ah, effectivement effectivement waaw jërë ngeen jëf am na solo torop si loolu xam naa dañ koy jeexalee ak sport di suñu gaynde yi nga xam ni démb amaloon nañu ab jongante ak équipe bu Bénin si coupe d'Afrique des nations yi U20 démb nag ñoom dóor nañu équipe bu Bénin un but un but à zéro si deuxième mi-temps bi daa daanaka suñu gaynde yi qualifié nañu si demi final bi xam naa euh, Kalidou dama lay bàyyi ñu tënk ka rek ndaxte instant bi heure bi mu ñuy dab. waaw euh, mais euh, xibaar bu neex la Sénégal d'ailleurs euh, contre Bénin moo nekkoon favori ñu xam ne dëgg. par rapport ak instant mhm. bi ñu par rapport ak niveau joueur yi ñu am. ak suñu mhm. bëri Sénégal tolloo nga xam dafa nekk dafa toll fi fi dafa toll au firmament. mel mhm. na Sénégal daal dina bi mu dóoree 1-0 si benn passe boo xam ni passe décisive bu Lamine Camara nga xam naa ngi wax temps yii passé. moo tax chan bi passé. moo def passe décisive ki nga xam ne mooy Samba Diallo maa ngi doon wax mu ne dinaa mu Kiew moo dugal. comme nga xam ni macha allah nee nañ suñu fikir saa yoo maane. Mm-hmm. am nañu ticket pour dem coupe du monde lu am solo la coupe du monde bi am fële ci Indonésie. Mm-hmm. Euh, nee na loo am solo moom ak Nigéria am nañu seen ticket bi rek am naa yaakaar incha allah bi dina ñëw Sénégal. incha allah boobu si. waaw effectivement nekk na match boo xam ne match bu am match solo la démb. donc nag ñu bëri jàpp nañ ne waroon nañu dugal benn bit. Uh-huh. jàpp nañu parce que. d'après observateur d'après d'après d'après euh, experts yi. Mhm. daal peut être moom bu ñu bu ñu benn jeu bu gën a. collectif quoi ak yeneen comme dominé nañu match bi. Mhm. waroon nañu dugal bi am nañu occasion boo xam ne bu ñu nee nañ mhm. bi euh, bande bi la a doon. nañ ne peut être deuxième mu amee ñàkkul ne si biir vestiaire yi am na lu xew euh, wax am na lu ñu waxaat. ba bi ñëwee ñu xaw a changé li nga xam ne moom mooy xar kanam résultat bi ñu joxe gis nañ ko muy euh, benn but boo xam ne nag euh, bu am solo la tax na ba ñu qualifié ci demi finale kon léegi kan gi ne bi ma la ko waxee. Mhm. qualifié ci li nga xam ne moom mooy euh, coupe du monde bu kan U20 ñu ñaan rek. bu ñu si yeggee ñu jël ko rek pour daal fête bi ñu nekkee depuis Coupe d'Afrique ba bañ a. bañ a jeex ñu daal continuer amal daal nañu fexe indiwaat ko rek bu ko defee ñu daal di wax euh, kontaan continuer voilà si loolu xam naa dañ koy tënk ba tey rek si combat bu ñu jëm dimanche bi di ñëw diggante Reug Reug ak kii di Sa Thiès ma bàyyi leen ngeen waxtaan si tuuti ñu daal di tëj. waaw Reug Reug Sa euh, combat bu neex la ñaari naata mooy ñoo xam ne dañu bokk jaar-jaar. te aussi ñoom ñaar ñu tolloo presque combat yi ñu bëre Sa Thiès di wut 15 victoire Reug Reug tamit di wut 15 victoire mhm. mais différence bi mooy que Reug Reug mosul dégg mu ñëw si làmb mbër la boo xam ne mbër bu complet la koo xam ne am na creuse victoire deux matchs mhm. euh, ki nga xam ne Sa Thiès nag am na creuse victoire am deux défaites mais moom ñu sant ñaar ñoo ñoo ko jaaral Malick Niang moo ko daan en 2013 te combat bi moo parax paraxe mhm. en 2018 boo ñaan deux daal ka encore ñoom ñaar nag mën naa wax ne Sa Thiès am na force am na faiblesse mais mais jàpp naa man jàpp naa mbër boo xam ne amul amul faiblesse. su dee mbër boo xam ne bu complet la Sa Thiès li nga xam ne moom gis nañ mu daan ay mbër yu am doole mel ne Moussa Dioum mel ne Tonnerre ay Moussa Ndoye mu daan nga xam daan si làmb en 2021. Mm. donc mun am daal si làmb yi nga xam ne mu tey. il faut mu mm. tey te tamit. Euh, li nga xam ne war nañ mun def mooy euh, na suy na fexe ba par exemple combat bi na ko jox distance te mu jëm déclencher comme par exemple xeex boo xam ne daf koy en tout cas lay doon. Mm-hmm. comme su xeexee taal bi jëm ko nax daan parce que mbër réer beneen mbër boo xam ne maanaam soo jàppanteeg moom pour que daan c' est très difficile. Mm-hmm. ndax d'abord dafa gàtt taayam ba pare encore dafa nekk mbër boo xam ne dafa am doole mbër kaamil la. Mm-hmm. te aussi dafa daj xam ne mooy rëgg nag bi. ma jàppal ne Ndanda nekk mbër boo xam ne mbër complet la gis na bi na mbër ak Elton bi ki Elton jàppee ñu jàppaan ne nit ñi yaakaar ni yee rërëg tey bu dee tey bu dee mais bi plaqué Elton instant ñëpp a gi tamit si benn fraction de seconde leen guy gi mbër boo xam ne giri giri dëgg jël bu dee ko daal gis nga man jàpp naa ne mooy favori légèrement mooy favori waaye Sa Thiès mën na am dara à condition mu motu jël crochet ba suñu jàppante te mu jëm ko may tuuti distance mu jëm par exemple tricher si benn xeex boo xamante ne suñ daal di bàyyi foofu peut-être jëm déséquilibré mais en tout cas combat bu neex lay doon. combat bu neex lay doon. effectivement effectivement comme ni ko waxee moom combat boobu moom ñu ngi xaar mu doon mu doon combat bu neex. donte nag euh, ku ci nekk mën ngaa mën ngaa mën ngaa daan sa morom. man gëm naa ne ku ci nekk euh, mën ngaa daan sa morom donte ni nga ko waxee am na benn légère euh, peut-être. benn léger avantage peut-être bi am ci côté ki nga xam ne moom mooy moom mooy Reug Reug. ndax moom mosul daanu. Reug Reug ko waxee. nekk na mbër na bëre lool mën na bëre. am na doole mais Sa Thiès si dafa mën a bëre. Sa Thiès dafa mën a bëre moom magam Balla moom dafay faral sax naan maa ñoom ñoom ñoom ñoom di ñax leen combat quoi te maanaam boo ñoom seen bëre bu ñu amee action dañuy topp action bi ba ba ba jël am. ñoom ñaar ñoom te expérience technique bu bëre boobu la gaaw nañ ils sont techniques puissants nañ. te it bu ñu xesee ba téye ci action daal dañuy fexe ba euh, action bi jeexee ci li nga xam ne. Mhm. moom mooy daal chute. Mhm. Euh, rëg-rëg avantage beneen bi mu am it mooy peut être wàllum xeex gis nañu MMA def na fa ay résultats quoi comme puisse dire. waaw ah. ah, amaan na beneen expérience euh, sur le mhm. sur le plan international dem na MMA MMA def ay résultats daan na fa ay ñoo xam ne peut être dañu jàppoon ne bu ñu ko jàppee dañ koy rey. mais mu dem wane ko ngóor la daan leen saa yi daal li mu wax peut être yaakaar naa moom combat. rapproché bu am corps avantage yu Reug Reug lay a doon bu fekkee peut-être bu xaw a am distance tuuti ñu xeex loolu mën na nekk combat Sadio parce que biir xeex boobu peut mën na fa mën na fa mën na profité ci benn faay wàññi pour daan ko quoi mais moom ñu def corps à corps moom mhm. yaakaar naa Reug <laughs> Reug boo Reug ko complet ah. de toute façon ñu ngi xaar combat bu neex rek parce que bu ñu bu ñu waxee rek gëj nañ fee am genre combat yu neexee noonu ndaxte bii mujj rek gis ngeen ni mu fa demee <laughs> daanaka kenn daanaka nekk na combat boo xamante ne nii ñu bëri sax dañuy wax ni yëguñu ko woon bës bi jugul daal. si loolu xam naa dama leen di bàyyi ngeen tëj rek ñu daal di tàggatoo ba beneen incha allah Bour waaw dina jaajëfal rek euh, soxna Asel di jaajëfal itam euh, mbokku internet yi nga xam ne kon euh, ñu ngi bàyyi saa su nekk suñu plateforme yi di seneinfo point net mooy site bi seneinfo international suñu chaîne YouTube ñu ngi it Instagram Twitter boo defee seneinfo rek di ñu gis di jaajëfal sama naataango di Kalidou Ba wala it yow soxna Asel ak présentation bu am solo ak yaay njaay <laughs> <laughs> di jox di amee di di gërëm itam Abdel suñu euh, cadreur ñoom tam ñu ngi koy sant bu baax a baax. xanaa mhm. di joxe dig daje rek euh, altine. Mhm, jërëjëf beneen yor yor sëñ bàyyi la nga tàggatoo ñu daal di tëj ba altine incha allah. Ah, jërëjëf ci présentation bu am solo bi ak liggéey bi. Mhm. Ah, jërëjëf sama sama confrère. Ah, Bour Sine Coumba Ndoffène. macha allah ci. ci ci argument yu am solo ci yaatal yi ci yaatal yi waaw ñu ngi aussi gërëm bu baax ki nga xam ne moo réalisé émission bi di Abdel Diallo ci liggéey bi ak efficacité bi di gërëm auditeur internet yi ñu suivre suñu plateforme seneinfo point net ak seneinfo international di leen seet aussi ajuma mubarak jërëjëf Kalidou Ba jërëjëf Buur Sine Coumba Ndoffène Diouf di jaajëfal tamit suñu caméraman bi Abdel Diallo donte pël la sax jaamu séeréer sama jaam bi Abdel maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal internet yu ñu doon seetaan à travers seneinfo point net info international li lañ leen indiloon tey ci seen yoor yooru Sene Info di leen jaajëfal bu baax a baax ci teewlu bi di leen jox dig daje altine incha allah jërë ngeen jëf. Restez toujours informés sur Sene Info xibaar yi wóor te leer ci bile toujours informés sur Sene Info xibaar yi wóor ci la mburu bi tàngee fii lay xayam xayamee xibaar yu war teer ci bile jamono dafay gëstu ba mu leer mu soog la ko jox moom xibaar yu war teer ci bile jamono